kii ngeen di gis ci photo bi mi ngi tudd Pape Macoumba Leye nekk militant wu Bokk Yaakaar fële ca Cofak leen ko ni mu doon waxee ak ministre Cheikh Tidiane Dièye démb fële ca Cofak nekk ci région bu kaw la Vision mais deuxièmement da ngeen dimbale balaa ngeen di ñëwaat da ngeen saafara lii plus cent maisons yoo xam ne soo andoon na ñëpp génn nañ cent maisons yoo xam ne tey jii dañoo génn donc lii c'est trop lii c'est trop nous sommes fatigués nous sommes marre dañoo sonn boo fi ñëwaatee déwén fekk saafaroo ko dañuy jëflante nga yóbbu suñu bakkan man ñun duñu oh, oh. ñoo ko déggandoo mbokk yi ki nga xamante ni moo di Pape Macoumba Leye moom militant wu Benno Bokk Yaakaar la moom sax moo nekkoon mandataire u Benno Bokk Yaakaar fële ca Jopak lors des élections présidentielles am na droit nag kaasal waa dëkkam mais na ko def ci respect te bàyyi politique bi mënoo bokk ci parti 12 ans mu yor nguur réglé wul jafe-jafe yi nga xamante ni yow koñ bi nga yeewoo fi la nekk. nit ñëw toog fi 3 mois nga bëgg mu régler ko ci 3 mois te nga bokkoon ci parti boo xam ne 12 ans ndox mi mi ngi taa foofu te indiwuñu ci benn saafara tey nag nga ñëw di waxee waxinu ñàkk yar wi ak Cheikh Tidiane Dieye ndax mbirum politique képp. réew de bu neexee rek neex na paax ba kumba xaw ma nan. Naby Vision. Eh, yéen xanaa xamu leen ne indiscipliné jarul jaay ci réew mi jarul fi dara gratuite la dañ la koy may le ministre Cheikh Tidiane Dieye xam nga ne la woon noonu moo tax nga jàkkaarloog moom di waxee ak moom nii ngay waxee moom. yow ya rew ya yabaate comment ça se fait yow bi nga xamné APR nga nekkoon l'ex pouvoir qui était là pendant 12 ans mënuñu leen defaral sen assainissement ba tay ndox di ñew benn taw benn toqum taw bi fi taw bu ne da ngeen fess bu xawma ñaatam plus de 100 maisons ya mëna a nga ba ngeen baama ci kàddu ya mëna mew parce que nak yeen xamu leen bur saay Naby Vision bu dëgg sa bëm na ngeen xam et ci to permet nga taxaw naan le ministre bu déwénee bo fi ñëwaatee nga jox la sama bakkan yow tapet nga bu xat nga go sa bakkan yow mëso jaay sa bakkan te sa askan jarul la jaay sa bakkan bu fekkoon ne yow sa askan euh, foofu nga dëkk noonu sa gox googu daf la ñor au ngay jaay sa bakkan pourquoi pas nga futeeku pourquoi pas ba nga nekkee ci Macky Sall ngeen yor 12 ans réew mi yor ay milliards de soi-disant milliards yoo xam ne da ngeen ko def ci lan assainissement te kenn gisu ko ba ngeen fi ñëwee ba tey 2012 ba tey saa yu tawee Sénégalais yi bëgg a dee le nouveau régime qui est là sans xaw ma ñaata jours 3 mois ñu ñëw salaamaaleykum salaam nga ne yow yaa leen di ménager noonu naan leen boo leen fi ñëwee ndox mi nekk fii ma jaay leen seen bakkan yow doo jaay dara ndax tàkkat nga. boo amoon fu la am fayda am tuuti patriotisme ci sa ci sa muy daw. bon yow ba nga nekkee ak parti au pouvoir Macky Sall ñu yor suñu ay milliards di saax saaxee bu la sa gox ñoroon da ngay jaay sa bakkan foofu la jaay sa bakkan amee woon solo foofu nga waree woon taxaw sa askan foofu nga waroon taxaw les soi-disant milliards xam ne dañ ko def ci arrondissement nga waroon ci taxaw nag ñu sa gox ba mu baax bu dee dama jàpp yéen liggéey ngeen

Yo bëgg nañ je suis sûr et certain que d'ici demain. comme ni koy chaque dimanche chaque samedi ci seen ay gox am jom yox seen i ak seen i nettoyer mais aussi di sensibiliser seen population ci nettoyage ci saleté bi ci mbalit yi ñuy def ci qui yi ci regard yi bouché ay xale say yu am jom nettoyer ko ba mu parce que tout simplement ay patriotes bëgg seen réew seen réew dañu ko canalisation yeeg mbuus mooy fatt loloy waral inondation yi problème assainissement là tu sais bien et bien que le nouveau gouvernement qui est là en tout cas de Diomaye et de Sonko inshallah allahu rabbi dinañ ko régler yow xam nga né dinañ ko régler bu baax motax nga genn di jay rew sen arrogance bi arrêtez len ko c'est pas parce que le régime qui est là dafa am considération ci ay citoyens parce que lolo ko war dafa jox cër nit ñi que vous ces petits bana rien là vous allez vous permettre tok ci télé wala ci sen ay fi ñu di di wax ak ñom comme ça arrêtez len jamm ji len le di wo jamm ji len gouvernement bi di wo wuyu len ñen xamne ku nek ngi ci gagner dara nabi vision wone len jamm yar ak teggine te ku ne nga def sa participation ci concernant assainissement bi set setal bi ku ci nek sa gox ya ko meuna setal c'est vrai que dafa am lo xamne gouvernement bi moko meun mais ku ne war nga am tay jom ak fulu ak fayda ak yeureum sa askan du tonni bo des jeunes nek ci koñ gis nga balé bobu ngay xëc ak père bobu di am suuf si di soti falé yow maire bi dëkk ci biir kër gi nga fexé ba canal bobu ngay dem di touri ndox nga tuufa ndox mu set wicc bu amul mbuus amul benn salté parce que canal yooyu ngeen di boucher ci mbedd mi mooy waral bu taw amee ndox mi du dem bu fattee ndox mi day dellu si waat dugg ci seen kër sonal leen ngeen jóg di naan gouvernement bi gouvernement bi. c'est vrai gouvernement bi ngeen mën a accuser parce que ne da nga ci am wàll bi ak fi. ñi ne ak ñi fi nekkoon ñu benn ñàkkuñu fulla ñàkkuñu fayda amuñu temps bu ñu toog di tontante avec un bon arrière comme nga moo tax ak ñoom nii ngay waxee ak ñoom. bu fekke da nga am patriotisme bu la tolu nga wara joxe sa bakkan futekul ni ma la gisee ni de xale lu góor ku mat sekk nga futekul la fatt fofu legui legui nga fottandi ko bu fekke nak problème assainissement la vraiment dis-toi que bo len ñu mayé temps bi ko wat gaay ci ciy ñun nak duñu def ay liggéeyu similaire wa ñu ngi ne ñu xol ñu ñew tek seen ay matériel wa on a fait on a financé un milliard tel tel tel tel dañuy defar fii bu gaay yi ngeen dajale dem déclarer 500 1 euh, euh, milliard joxe 500 millions xam nañ lépp dañu wax lepp parce que dafa am ñuy bañ te réew mii jàmm lañ fi bëgg te jàmm moo fi am incha allah rien de personne nag laa lay wax ni ci réew mii moo na fi indi lu dul jàmm le gouvernement sortant boo amee koy accuser joxoñ ko baaraam nga def ko ci ginnaaw nag bu ko def ci kanam ndax ñun ñu ngi ci kanam nee ko nii ñii laa bëgg gis nga def ko réglé leen wuyu leen nit ñi ci jàmm ji leen di woo wuyu leen nit ñi ci jàmm ci yar gi ak teggin gi ñu leen di woo Naby Vision bii ak bee bokkul de bii ak bee bokkul parce que duñ fi ne di la menacer dañ lay teg sa kër jël si kenn injustement du ñu dóor kenn du ñu saaga kenn du la topp di la suivre di la yàqal da nga nekk jeune nekk sa yoon na la réew mi ñor bu tey en sa xol wala ngay defee naka su dul noonu yéen xam ngeen ne bu baax ki ñëwoon ak ñi tey du ñu benn donc bàyyi leen seen arrogance bii ak seen yii ngeen dellu si xam nañ lépp yéen a ngi ci biir dellu si leen ngeen tey vous êtes des ñun ñëpp a fi bokk yam réew mi ñoo ko bokk. nga bokku APL ak ma bokku Pastef ak ma bokku fenen ñoo ci bokku yam ku ci ne intérêt réew mi la wara a ñor bu la réew mi ñoree nak bo gisee nen da ngay nan nen nga xam nga ne nen nga fi nen nga fi de kenn tojogu ko ken omelette gu ko baxalu gu ko nen a fi donc nañu tay dal buñ ko omelette ñepp bokku buñ ko baxalee ñepp bokku ñu bokku and ta xamti ko arrêtez ça arrêté hein ah, pourquoi yi hein ah, ah avec bàyyi ma ko loo de waaye ah ah <laughs> waa awa baxna ndank rek mon frère ndànk wasalaam wasalaam ñu ngay nootu sax na ma yàlla baal ay di Naby Vision. ngeen taxaw di osé wu mais yow ci gouvernement Macky Sall nga nekkoot ci gouvernement Macky Sall nga nekkoon lan moo tax yow imposé woon ndeem Macky Sall pour mu defar Kaolack pour mu dindi inondation foofu Kaolack lan moo tax yow imposé woon ndeem Macky Sall pour ñu Macky Sall defar canalisation foofu nga xaar boo nga xaar mu wàcc ba pare mal éduca mal éduqué mal comportement nga taxaw di osé wu di wax ak xol mais loolu loolu yow lan moo la dugal si loolu laa bëgg a xam mais yow ndax nga fi candidat naa Vision. léegi yow bu nga defoon foofu si gouvernement Macky Sall boobu di ànd ak moom ku jàpp ci lan moo tax imposé woon moom Macky la pour mu defal canalisation foofu dégg nga xaar Macky Sall wàcce yéen yëpp ngeen ni ubbi seen gémmiñ bu boobu seen gémmiñ riba boobu ngeen fekke xaalis réew Sénégal bi def lu leen neex pasar pasar ko loolu amatul léegi nga ne leen xaaral ñu ñoo di wax.

salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi Saliou Khelcom kii taxawoon ak Cheikh Tidiane Dièye kàddu yi mu doon wax na ko sénégalais yi mooy tundiku. Naby Vision. parce que démb ñëpp soxla woon Cheikh Tidiane Dièye ñëpp a nekkoon ci jafe-jafe inondation mu déplacé wu ñëw taxaw ak yéen ba noppi loolu noonu nekkoon loo xam ne mun ñu ko woon am ci ministre yi sëñ buñ sàggane loolu quoi bu ñu ministres yi ñëw wàcc seen bopp. suufeel seen bopp ñëw di jege askan wi di wax ak ñun lii ñun ci boppam ñoo ko war a bañ maanaam bu ñu am ñu am jafe-jafe am ñenn ñu fa ñëw di saboote parce que dañ lay xañ dañuy xañ lool noonu maanaam mën nañoo mujj ministre yi ñëw foofu dootuñu amati accès ci ñoom wala sax dootuñu wàcce di ci terrain bi comme noonu ñu ko doon defee te loolu mën naa ñaak gis naa mu dal El bi muy wax ak sa mu ñëw di wax ak ñoom am ñu fa nekk rax leen di saboote comme bi Sonko di dem Colobane keroog am ñu fa nekkoon aussi yooyu noonu ñun ñu ñun ñu am problème ñoo jël responsabilité taxaw jàkkaarloo ak ñii ñi ñi saboté yu mel noonu parce que lii nii nabi du woon lu ñu am gis nga kooku taxaw naan jox damay joxe sama bakkan ki fi doon laaj bakkan yi ba mu fi nekkee joxewul bakkanam muy Macky Sall ñii nag duñu wàcc ci terrain bi ñëw di ci li leen war ñu war a waxante ak ñoom comme ni ñu wàccee seen bopp ñoon ñu war a wàcc suñu bopp ñun tamit wax ak ñoom suñu fulla ak ak suñu aajo ñu ñëw di menacente ak ñoom loolu du yoon te képp ku am jafe-jafe da nga war a bañ loolu noonu kenn ñëw di fa taxaw di wax wax sant wax dof yi wala bu ko nit defee ba pare yow ñeneen ña fa ñeneen ña ca des nañu taxaw jubbanti wax jooju jéggalu ñëpp xam ni kooku noonu li mu wax kenn wax loo wukk loolu laay wax parce que wax ji dafa ëpp boo fi ñëwaatee defoo lii mel ni ko koo xamante ni si ñun ba kii ba mu faloog léegi nettoyé rek moo fi xaj dara xaju fi lii di am nii yëpp ci inondation yi du si responsable état bi fi ne état yi fi jóge la muy Touba gii ñuy wax ak fépp Touba 27 milliards yi ñuy wax moom lañ def inondation bu doon def nañ ko tey di duñ ko jàmbat te ñoom ñooy gën a partagé nag vidéo yi nga xam ne 2020 la ak 2021 pour si defee Dakar ak feneen ak loolu yëpp seen responsabilité ñoom ñi fi nekkoon la Naby Vision Cheikh Tidiane Dieye amul lenn yenn milliards yu mu dugalagoon ci inondation ba nga mën a ñëw taxaw naan ko pour parce que ñoom dañoo bëgg a régime bi fi nekk li mu fi doon def non nañu nekk ay nit te bàyyi yenn genre wax yi ngeen jëf. maaleykum wa rahmatulah patriote yi maa leen di bëgg bu baax di leen siyaare di leen ñaanal jàmm ndeysaan ministre bi mooy docteur Cheikh Tidiane Dièye kon nan kontaan nañ ci yow bët nañ ci yow gis nañ déplacement bi nga def ba dem Kaolack jóge Saint-Louis dem Kaolack ngir jafe-jafe ba fa am macha allah ñun lii lañuy soxla ci njiit walaay la sim am yëg-yëgu nit ñi. ba pare xamne sénégalais ñolo fa lepp lu xew rek wacc leen ci téré bi dund ko ak nit ñi waye fekk nga fa nak ku ñak xam-xam ku rew fekkee deug rek la yalla bëgg dégg ko xamne xamul sax fu muy wax taw té wuru ko jox parole ci biir mbolo muy waji rew na trop li tax mu rew moy kilifa ministre la wërta mëna déplacer wu ngir jiima safara sa jafe-jafe yow nga fay wax waxi réewande benn Cheikh Tidiane ma sha allah ministre bi am nga yar dal nga te mat nga liñ la doon doyee am na sa jàmm yàgg mais waa ji reew na trop. Naby Vision te moom dafa xamadi mais lii jafe-jafe bii am Kaolack waaye Cheikh Tidiane Dieye defu ko fa. même régime bii di doog a toog defuñu ko defuñu ko fa am ngeen maire yi te am ngeen régime bu fi njëkkoon a nekk régime bi fi njëkkoon a nekk moo yàq réew mi gars yi bu dee dëgg rek la yàlla bëgg a dégg xulil ko wala kaana murran ñii nga xamante ne ñooy état bu bees bi di doog a toog mënuñu dara dara dara dara dara ci inondation yi war a ñëw lenn daal mën nañ ko muy jéem wàññi ko. mais moom ñoom mënuñu téye dëkk bi indone parce que ñi ngi doog a toog daa trois mois na leer ñu fi toog douze ans lekk suñu xaalis ci bu ngeen ko bu ngeen leen ko mënta wax ngeen wax ko nit ñi waaye nag am na ay politiciens ñooy làqatu seen ginnaaw di leen wax loo waxi dof yi waa ji réew na ñàkk na xam-xam te ku mel nii bu leen di ko joxati parole mi wax ci biiri nit muy dof dof lu nii man xawma lu tax nit ñi indiscipliné quoi